Serigne Saliou asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu nuyoo lislaam boobu yi di ñaan li mu làmboo lépp ci jàmm ak yërmaande ak barke yàlla tasaare ko ci jotaay bi ak mboolem fu jullit ñi nekk ci at waaye ñu ngi am mbégte itam ci guddi gu tedd gi ci dajeeg yéen ci barab bi nuyoo itam ak siyaare ñu ciy jiital Cheikh Mouhamadul Mourtada um Saalix di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér yàlla suñu borom kàttanal ko te dëgëral ko kon ginnaaw waxtu yu daf ñoo xaw a ni ko sëriñ Jiir Njaay waxee dañuy daal dugg rek ci li nga xam ne moom la bëgg waxtaane mel ni day jëm ci ñaari wàll genn wàll gi day jëm ci benn jullit ñi danañ ci wax waaye ñëwaale itam nag ci topp kilifa ak tënku ci ndigal mu mel na ñaari mbir yoo xam ne dañoo ànd te mënuñoo teqali ko di loo xam ne itam nag waxtaane ko am na solo rawatina ci jamono ji ñu toll jamono ju ne war nañuy waxtaane solos bennoo jullit ñi ak luy tax mu mën a sotti luy tax mu mën a nekk war nañ di waxtaane itam topp kilifteef tënku ci ndigal loolu lu jar waxtaane la ci jamono bu ne waaye jamono bii ñu toll def ci ndax day jamono boo xam ne képp ku xool bu baax situation bi nga xam ne jullit ñi ñu ngi koy dund jamono ji ci ak wuute ak teqalikoo ak delt ginnaaw ak ay jafe-jafe yoo xam ne yu bari ñu ngi koy dund te lépp daanaka la ko waral rek mooy seenu xàjjalikoo ak seenu ñàkk doon benn saa yoo xoolee rek danga ci teg bët mel na ne monde bi boo xoolee rek fenn fu nekk am na ci koo xam ne ma ngay tàgg ñoo xam ne ña xeex seen biir réew ñoo xam ne ña jàppante fu ñu toll deret jàngay tuuru lii tuuru ci deret bari na lool ci jamono yi ak at yi nga xam ne moom lañ génn muy lu doy waar kon daal day ne benn réalité la réalité boo xam ne umma islamique bi ñu ngi koy dund ci ay jafe-jafe ak ay tolluwaay wala sax ñu mën koo tudde crise crise boo xam ne moom ñu ngi ci moo xam wàllu góor góor rek wàllu politique ak ñàkk ànd wàllu bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sayidina mawlana muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahum bi ihsani ila yawmi din ñu ngi nuyu mbokki taalibe yëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh di tàmbalee nuyoo bi ak siyaar bi ci sunu sëriñ Cheikh Mamadou Mourtada ñu sëriñ Saliou ñu ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér mooy ñu yéene liggéeyu sëriñ bi mu def di ndokkee di bisu cant di bisu màggal xam ne sëriñ Tuubaa li mu doon ci boromam lépp ci bis bi la ko may di tàmbalee ndokkeel woo ci ak xalifatul am Cheikh Mouhamadou Mourtada di ñaan li mu yéene liggéey borom Tuubaa lépp yàlla may ko mu àggale ko ak sago dañ xam ko ak moom di sof rek sunu kàddu ci kàddu sëriñ Abdul Ahad Bousso ci solo soo xam ne benn jullit ñi am na ko loo xam ne yàlla da cee soññi jullit ñi yonente bi sonn ci jullit ñi sëriñ Tuubaa démmal ko woote ci l'islam li mooy ngir defaree seen diggante ku ci nekk la nga bokk ak sa morom nga defar ko wax ne it teqale ko li muy jur jur mooy ak kéefër teqale ko ci diggante jur li muy jur mooy da leen delloo ñu nekk ay yéefar te jullit moom bu génn ci islam nekk yéefar l'islam dana dañ ko war a rey kon teqale ko kéefër li jur loolu day wane kon ne bennoo dafa am solo waaye lislaam daf ñoo tegal ay ponk yoo xam ne nii ponk yooyu jubluwaay bi mooy wane bennoo jullit ñi ndax lislaam dafa am ay banqaas am ay ponk banqaas yi mooy yi nga xam ne mën nañ cee wuute te wàññi dara ci lislaam ponk yi nag mooy yi nga xam ne sañu cee wuute ku ci wuute kooku mu wuute ga danañ mën a génnee ci diini ponk yooyu nag ñu mën cee jël lu mel ni julli julli day symboliser bennoog julli julli ci mbooloo l'islam day bëgg nit ku nekk boo ko mënee julli bu jot nga nga defe ko ci mbooloo moo tax yonente bi ne yow mi wet julli ak sa julli nga jullee ko mbooloo loolu julli mbooloo dana rawante julli kenn juróom-ñaar fukki tuyaaba maanaam bu ma wéetoon julli wala ma yi julli ci mbooloo sama julli yi ma julli ci mbooloo mi dana wuuteeg sama julli kii juróom-ñaar fukki tuyaaba loolu l'islam ko def waaye jublu ci bennoo boobu rek waaye bennoo ci jumaa ji dañ koy def ngir mën a xamante ndax bu ñu tabaxee jumaa yu toll nii ci quartier bi waa quartier bi am nañu fi dëkk ñoo xam ne xamante wuñu am nañu fi dëkk ñu néew doole am nañu fi dëkk ñu am doole jàpp leen teewul li li ko waral mooy dañu gisante dañu daje moo tax lislaam wax ni julli juróom mooy buñ doon daje juróomi yoon ci waa quartier yi yëpp génn daje ci jumaa ji juróomi yoon par bis xàmmee ne dana bu xàmmeentee am waxtaan dana ñëw bu waxtaan ñëwee ku nekk mën naa xam fan ngay jaar mën a jàppale sa morom kon loolu mooy waral jullit mbooloo bennoo boobu ak xamante boobu ak mën a jàppale nit loolu moo tax lislaam sopp ñuy dem ci mbooloo di julli boo jëlee julli juróom loolu mooy jubluwaay bi waaye yemul ci julli juróom semaine bu julli àjjuma yi dañuy bëgg waa kàtt yëpp bu julli gi jotee lu waay doon def nga bàyyi ci doon jaay nga def bitigam lu waay jàppoon nga ba ko te dem ci jumaa ja bu ñu demee ci jumaa ja imaam bi semaine bi am na yu xew yoo xam ne nii lislaam am na ci ay jàngat yuñ ci war a jàngat ngir julli ñëpp xam ngir ku nekk xam nga teg sa tànk ci xutba boobu imaam war naa jàngat semaine bi xew-xew yi ci am te yitteel jullit ñi ak taxawaay yi jullit ñi war a am mu leeral leen ngir ñoo xam ne ñoo bokk lu ñuy ñoo bokk nuñ koy fayee lislaam it indi nañu solution ci jafe-jafe yi nga xam ne mooy am ci jamono yi loolu mooy waral kon julli mbooloo ci ne ñëpp war a dem ngir mën a taataan table yooyu nga xam ne nii day leeral julli ñi fi mu seen tànk waaye yemul ci julli àjjuma naka loolu it julli it julli it moo gën a yàgg bu julli it jotee la jumaa ji di gën a fees na mbooloo di gën a bari julli it day am xutba day am discours boo xam ne discours bi dañ cee war a fàttali jullit ñi seen digganteeg seen borom seen digganteeg seen morom seen digganteeg seen bopp ngir ku ci nekk xam ni nga war a jàppe sa morom julli ni nga ko war a defee sa bopp kon julli julli ponk la boo xam ne ponk lislaam day buñ ko defee ni ñu ko war a defee dëgg-dëgg dana tax bennoo am ci diggante julli waaye bu ku nekk beroo sa bopp di julli ah, mën ngaa dëkk nga dendal sa bu ngeen xamante du ngeen du ngeen demlante te fekk ne mooy jumaa kenn bu te dem yéen ñaar bu ngeen xàmmeente du ngeen waxtaan du ngeen mën a jàppalante ci dara loolu nag day jël ak jàppale ko nga jël benn ponk bi mooy lu mel ne koor koor moom it day wane benn jullit ndax koor bu jotee jullit ñëpp ñooy bokk benn programme ci lan waxtu wi ñuy jàpp koor muy fajar ñëpp ay bokkandoo jullit ñiy woor ñëpp dañuy bokk bàyyee loo lekk bàyyi la waxtu wu demee ba timis jot it ñëpp dañuy maase dogandoo kon day wane ne ñun noonu ñu bokkee benn programme ci weeru lëmm di ko doxee noonu noonu lañ war a mën a bokkee programme am jafe-jafe yi jullit ñi am yépp moromu jullit ñi taxaw ci ba jafe-jafe yooyu mën a kon koor ni ñu bennoo ci weeru koor ci di bokk waxtu ñi def waxtu ñi bàyyi bu jugee ci koor yi waruñoo bàyyi noonu waaye suñu programme yi ñu dund yëpp dañ ko war a dundee noonu koor loolu ñu jàngal bennoo lay jàngale nga ñëw ci azaka zakat asaka mooy ki am alal dañ naan ko da jël ci sa alal tuuti at jox ko ki amul ki am ngay jox ki amul lan jox nag loolu farata la. xale ko ci tënku ci ndigal mi nga xam ne mag yi mag mag ñi toppoon Sëñ Tuubaa nañ nañ nañ nañ dundale woon topp ak njëriñ la fekk ci loolu la ñëw ak suñu mbokk sëñ Bachirou Faye bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima assalaamu aleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci ne ci turam a santam leen ci bis bu tedd bi di ñaan yàlla suñu borom moo ñu ko defal ñu yoonu ku sant yàlla di nuyu suñu kilifa gu tedd gi Cheikh Mouhamadul Mourtada Mbacke ibn Sëriñ Salim di ko ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér yàlla kàttanal ko ba mu yeggalee ay naalam ànd ko ak taalibe yi amiin ah, ci barke Sëriñ Touba kon ñu dugg ci thème bi euh, rek bala ñoo ñàkk ci ay waxtu ndax xaw naa mi ngi xaw a guddi tuuti ñu bëgg a waxtaan ci ñaari poñ doole ko ci lii euh, sëñ Abdoulaye wax ak sëñ Mame Cheikh Fall mooy euh, benn jullit ñi liñ ciy dolli mooy. ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom nuñ ko jàppe ba yàlla dogal ñu am ci ndam yiñ ci am ñoom suñu waxee loolu wax taxawaayu Cheikh Ahmad Bamba ci jullit ñi bennoo ak tënku ci ndigal ak ni ko mag ñi jëmmale bi ci njëkk mooy xam nga lislaam benn xeet la benn xeet la boo xam ne benn yonent moo leen boole benn téere moo leen boole benn pas-pas moo leen boole ci cosaan li ñu tuddee wuute si lislaam lépp dara du ci cosaan lépp ay banqaas la waaye cosaan yi ñun ñëpp ko bokk loolu day firi ne lislaam benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar niñ koy waxee ci baati wolof yàlla sunu borom dafa wax ne yéen jullit ñi da ngeen di dimbalante ci seen biir di dimbalante ci ragal yàlla di dimbalante ci mbaax waaye bu leen dimbalante mukk ci ay bàkkaar ak di indi ay noonoo ci seen diggante loolu li muy firi mooy kon yéen yéen a bokk lépp dee leen yëkkateendoo di tegandoo mu wax ne bu leen di xëccoo ak di xiiroo ak a ŋaayoo ndax bu ngeen ko dee def dootu leen saf borom maanaam seen caf ko day dem kenn dootu leen xam dégg nga bi moo fi nekk waaye fond bi du fi nekkati maanaam contenu bi dootu fi nekk yàlla waxaat ne na jàpp ci buumu yàlla gi yéen ñëpp te bu leen tàqalikoo loolu lépp ci alxuraanul karim ay junj la yoo xam ne li muy firi mooy jullit ñi benn lañ kon nañu jàpp ne ñoom ñoom bokk lépp doomu aadama nag euh, sunu boroom moo ko bind euh, ngir muy wuti moroomam fu mu fu mu ne ndax nit moom moo baaxoowul dund ci wéetaay boo dee jàng ci wàllu sociologie doomu aadama ba muy tàmbali di wéet booba bareegul nit ñi kese ñoo daan dund kenn ku nekk di dund ak boppam waaye bi ñu ragalee ci seen kóolute yaram ak seen seen dund bi gën a jàpp ni ku ku xëy rek di wut moroomam ndax bu ko gisee lam daan am benn ñaar la ci am ñaareel bi day wettaliku te wettaliku bi da koy jural sécurité ci ci ci ci dundam loolu moo tax nit yàlla moo ko mooñee muy dund ci mbooloo moo tax yàlla te ko kon ngay dund ci mbooloo moo xam ne benn xeet ngeen te yéen bokk pas-pas bokk fu ngeen jëm loolu ay jàppandal la yoo xam ne suma borom moo ñu ko defal mu doon ay kéemtaan yu rëy rëy ndax nit ki mun a ñàkk dund ci mbooloo euh, yàlla it euh, dafa wax ne yéen nit ñi man maa leen bind def leen ñii ay góor ñii ay jigéen